bismillahi rahmaani rahim ñu ñëw ci njàngalem sëriñ tuuba ci ñaar téeméer bi am na jullik suba goo xam ni sëriñ tuuba xaadalahoo law maxtaar lahoo daa yeexe ñëw lool ba sëriñ aafiyatu radiallahu taala anhu di bëgg a jiite ba ñuy liqaam ba ni xadd xaamati salaatu sëriñ bi ni cëpp fa mu war a taxaw te kenn xamul fu mu jaare ba mu ni fajar gi xanaa xaw naa naaje ñu ni ko waawaaw serigne touba khadalahu allah makhtarni ni fa ñuy salato ak fi may agsee fi doxum ñetti junni at la ci fasu naru goru pep werna pep wuy lekk pepp wallahu alam yu melni serigne bi daana ko faral di def waye yep ci julli suba lay doon li ci ëpp sa su sëlmalee dana leral li tax mu def ko yep itam njaareem la tàmbalee atum masasin ba ni mu làqoo wallahu ala kulli shay'in qadir serigne touba xaada lawo lawo maxtaar loo mas wax xam ngeen luy tax a dem ca beurep bu tedd ba muy aljana ñu ni ko xana nga dimbali ñu ci mu daal di bind fi suuf jébbalu ñu xam ngeen jébbalu nu mu deme ci yoonu aljana ñu ni ko xana nga dimbali ñu ci serigne touba xaada law lawo maktar loo ni fi gaalu jere gi di taxaw muy saxar gi ku fa dem bëgg dugg na ngay def ñu ni ko da ngay ñaan paas wala wut paas sëniñ bi ni bu gaal gi dikkee boo ñaanee paas dugg nag ñu ni ko bu gaal gi demee yóbbu la sëriñ bi ni boo ñuul boo ñaanul paas ba noppi dugg ci gaal gi ñu ni ko bu gaal gi demee yóbbu la sëriñ bi ni demin wu diis ngay dem boo ñaanul paas duggoo ci gaal gi nag ñu ni ko bu gaal gi demee bàyyi la fa sëriñ tuubaa xaada la wala maxtaar loo li loolu laay bañ moom dugg ci gaal gi ñu di la fitnaal ba nga àgg ci ab dëkk sax moo gën bañ a dugg ci gaal gi ndax bu gaal gi demee bàyyi la fi doo dem fenn wér na wa tilka lamsaalu nadribuha linnaasi wa ma yaqiluha ila alaalimuun murid saadix murid marid wallahu aalam ñett yooyu la seen bi xàjjale am na naar yu masa ñëw ci Sëriñ Tuubaa xaadala wala maxtaaloo ni ko danoo dégg ñu ni yaag yonente bi lenn ngeen sallallahu taala alayhi bi ali wasabi wasalama te moom amul woon takk ndeer te weñ daawu ko laal Sëriñ Tuubaa xaadala wala maxtaaloo ni leen wax ngeen dëgg yonente bi sallallahu taala alayhi bi ali wasabi wasalama ab takk ndeer la te ab takk ndeer weñ du ko dal te du am takk ndeer wér na xëy na leer la la bëgg a wax ndax am na yeneen nettali yu mu leeral tontu li lool xoolal waxtaan sëriñ tuuba wala alam am na naar yu masa ñëw ci sëriñ tuuba xaadala wala maxtaal oo dañoo wax ni sërif nga te nun sërif bu ñuul xamunu ko te rasulullahi salallahu taala alayhi bi alihi wa sabi wa salama mi nga wax ni yaa ko wuutu daa weexoon sëriñ bi ni leen wax ngeen dëgg waaye bët li ci ñuul ak li ci weex lu ci gis ñu ni ko li ci ñuul sëriñ bi ni leen mën ba muy gis maa doon peru bëtam moo tax ma ñuul wér na ku nekk kem fi am xelam tollu la koy tontoo wallahu ahkam ñu ñëw ci njàngalem sëriñ tuuba ci ñaar téeméer bi ak ñeent ay naar mas nañoo ñëw ci sëriñ tuubaa xaadalawoo law maxtalawoo ni ko boo tàllaloon saw làmmiñ nu xam yaa yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam wala déet ndax am na ab ñuul ñuul bu nekkoon ci làmmiñam sëriñ bi jox leen xaalis ba tege woon foofa ni leen fob leen ñu daal di dem ba ñu demee sëriñ tuuba xaada la law maxta loo wax ñafa toogoo ni leen maa nangu ngeen ku leen nax ci nun ñu ni ciel mu waxaat ko ñu ni ciel sëriñ bi ni loolu ñu fi jële bëgg maa nax képpa tax ñu fob ko nuróole googu ñu may nuróoleeg rasulullahi salallahu taala bi alayhi bi alayhi wa sabi wasalama ba di ma laaj firnde xaalis bi rek la ñu bëggoon di wut lu ma neex waaye man kuma nax ci rasulullahi salallahu taala alayhi bi alihi wasabi wasalama ma nangu ma nangu ngeen ku leen nax ci nun ñu ni ko waawaw sëriñ tuuba xaada lawo law maxta law ni nangu leen ko de ku leen nax ci nun du tax ngeen naxu de wér na sëriñ tuuba xaada lawo law maxta lawo mas naa wax kaamil bi ñaata xisib la ñu ni ko juróom benn fukk sëriñ bi ni boo ko defee fukki xaaj ak ñaar xaaj bu nekk juróomi hisib tabla ji mi ngi nii mooy der bi baraada bi mooy kaamil bi fukki kaasi ak ñaar mooy jukki yi saa boo ko xellee ba mu àgg nga jox ko fukk ak ñaar seddali nga téere bi bu ñu ko naanee ba delloo si ko ba nga dëpp ko jox nañu leen yoolu jàng ab kaamil wér na faaw itam da ngay wax bismillahi dégg naa ko ci yeneen mag walaw alam sëriñ tuuba xaada loxo law maxtaara loxo am na ñu mu masa tàngalal warga jox leen kaas ya lool ba kenn mënu ko laal ñu koy awante sëriñ bi ni leen xanaa daa tàng ñu ni ko xaw naa de mbàkke sëriñ bi ni xam ngeen lu ma ci jublo dama bëgg ngeen sax ci bu ngeen ci saxee dàkk ba bayyi koo fi mooy faatu lakk-lakk yooyu ngeen di lakk ci seen cati baram yi ak seen tuñ yi mooy seen wàll ca safaan ba ëllëg wér na su ko defee ñamu tàng moom dañu koy moytu ni mu ñëwee ci adis yi naka noonu ak naan sëriñ bi nag daa ami jagleel yoo xam ni moom rek moo koy xam ak ki mu ko leeral ndegem leeral nañu lii ci attaaya te kafe itam da ciy mën a ànd danañu xam ni tàng yi amul lor ci nun mën naa amit sëriñ bi tàngal kaas yi ngir bëggoon a leeral loolu tey ndax gis nañu li mu mujj li mu ci mujj teg xam ngeen lu ma ci jubloo ba wax ja jeex wallahu alam. ñu ñëw ci njàngalem sëñ Tuubaa ci ñaar téeméer bi ak juróom ñaar am na naar yu ma mësa ñëw ci sëriñ Tuubaa xaada lahoo lahoo maxtaar lahoo ca gànnaar ni ko danoo dégg ñu ni yaag rasulullahi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi lenn ngeen sëriñ bi jëlum soow def ca ndox suukar ko ba mu seey mu ni leen naan leen ba ñu naanee ba noppi sëriñ Tuubaa xaadala walaw maxtaaloo ni leen ndax man ngeen a teqale yatt yooyu yi lu ne leenu fa mu nekkoon muy soow mi ndox mi suukar si ñu ko kenn mënu ko kudul yàlla sëriñ bi ni leen kon bàyyi leen nu foofee wér na ينقاد لي جواب كل سائل ممن لخلبي جاد بالمسائل لولو سرين بموكو بند والله أعلم سرين توبا خاد له الله مختار له مسنا وخ سرين محمد لمن دوم رضي الله تعالى عنه نغم تيل بربا بابو مجنت سيونا نينا نمبك كجور والله أعلم ñu ñëw ci njàngalem Serigne Touba bu ñaat téeméer bi ak juróom-ñeent Serigne mahamadan moom Serigne Masamba radiyallahu taala anuma bi mu joxee Serigne bi xaada lawalaw maxtaaloo ab kaamilam da ko ni ku def nii maa la jur aduna maa la jur alaaxira siiw na Serigne Touba xaada lawalaw maxtaaloo mas nay wax ci yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi am koy defar waat sëriñ bi ni ko abal ma fii fu ñuy tuddee yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sabi wa salama kenn wat taraf siiw na loolu nuroog naag li ñuy nettali ci imam malik radiallahu taala anu ni mas nay nettali ay hadis jiit fett ko juróom ñeenti yoon te yënguwul ngir màggal waxi yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sabi wa salama loolu nag war nanu lool ci waxi sëriñ bi بقدر إجلالك شيخك تفوز بما تريد وبه اليمنى تحوز والله أعلم ñu ñëw ci njàngalem Serigne Touba Serigne Touba xaada lahoo laahu maxtaara lahoo na xuru ngar lu ñu muur la ngar mooy fu ñuy dugub nee na ngar lu ñu muur la ku amul muur du fa ñëw siiw na Serigne Touba mas ba muy dem ni babakar bërëb baa ngoogu te mooy fi ñu ko denc bu ma sañoon kenn duma askan fenn fudul fii siiw na li tax ma indiwaat ko daa am tuuti li ci dolliku waaye yaakaar naa benn la walaw alam sëriñ Tuubaa xaadala walaw maxtaaloo mas naa wax sëriñ Mbay Jaxate radiallahu taala anhu Ibra Faal la ko daloon ba mu may wër da ko dalaat ci bërëb bii fu ne ma nga fay dem di wër leerug bërëb bii siiw na sëriñ tuba xaadalawoo law maxtaalawoo da ko yabalon ngir mu dëkk foofa yàlla dogal mu dem ca wet ga sanc fa jàppe ko foofa sëriñ bi door faa yebal sëriñ Mbay Jaxate radiallahu taala anhuma boo xoolee xaajum ñaareel bi ci téere bi dana gën a leer ci yow wallahu alam ñëw ci njàngalem sëriñ Tuubaa ci ñaat téeméer bi ak fukk ak ñeent am na ku sëriñ Balla Faali masa yónni radiallahu taala anhu ci sëriñ Tuubaa xaada lahoo laahu maxtaar ba mu joxee loolee ba noppi sëriñ bi daal di jug woo fi bërëb mu fekk fa ay gaal yu bari gu ci ne ñu bind ca kaw wa innaka la ala azim ni ko lii dama bëgg ngeen yóbbul ma ko njaareem na nga wut fukki galem. ak juróom benn fekk mu ànd ak juróom benn gëléem mu wut fukk dolli ca bu ngeen demee ba jub Tuubaa sama dëkk bu baax ba ni ngeen aw ci wet ga ko féete Saalum bi mu ñëwee ba ndula jëm saam am galem gu taraf mooy daanu am gaal gu daanu bi mu agsee njaareem dem ca taax ya jënd gaal gu mel noona daa di lal mbalaanam di teggi di ci teg ba mu mel na mu meloon bi sëriñ bi ñëwee ni ñëw ngeen ñu ni ko waaw muy xool di xool ba mu yàgg mu ni ndablee nag moom mu ni ko daa am lu ci sikk te ñimewuma la koo jébbal ma jënd leneen ndab def ci la ci nekkoon Sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaaloo ni ko ubbil ma gis mu ubbi Sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaaloo ni ko tubaar kàlla am ñu naan tubaar kàlla wala tabaarakallaahu nii laa ko yabe woon de ndab loo lii man nga koo yóbbu di ci defandiku wér na ki doon nettali nee na moo yor gaal googi yàll na fi yàgg téwér wallahu alam sëriñ tuuba xaada lahoo lahu maxtaara lahoo mas naa wax sëriñ bàll faali radiallahu taala xanu. fii nu nekk nu mu tudd mu ni ko njaareem sëriñ bi ni ko gox bi nu mu tudd mu ni ko yow de midina nga ko tudde wala bu buqatul mubaarak serigne touba xaadalawo wala maxtaaloo ni ko nu ko wala fi di wax mu ni ko kër gu mag sëriñ bi ni ko moo tax bëgg nga ne fi wala nga nekk fi kër gu mag day am mag moo tax ma bëgg nga toog fi siiw na touba Tuubaa wala maktar la ho na mbaa yëngeen ni balaa kenn dem ajjana daa laab ba mel ni rasulullahi salallahu taala alayhi bi alihi wa sabi wa salama ñu ni tell mu ni da ngay weex tàll ba mel ni rasulullahi salallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa salama ñu ni cell mu ni waaye yéen bu ko reegee damay mel ni ab defukaay mooy kalpe ngeen mel ni weccat dugg ci man ma dugg ci jibay rasulullahi salallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa salama wér na نبينا قاد لي ما أستبد به مع الجماعة فضلا من مزاياه وهب لي خير الورى شفاعة في من أحبهم وهم جماعة والله أعلم سرين توبا خاد له لو مختاره نينا يالا دو دف أب جام دارا دا كوي دفال رك فكنا لمو كوي دفال بودي لكو جنل لولا لموم budul la ko gënalit loolaay wàllam ci yàlla subhaanahu wirna na xul kullun yaxmalu ala shaakilati wa ma illa an yasha allah wa ma rabbuka bi zalaamin lil abid yàl na nu saxal ci limu mu tànn ci nun ci baar képp xaritam ba wallahu